jaajëfatee jaajëfatee sama gars Mr. Mister là, depuis Brooklyn New York sama gars yi je dama vous defal une vidéo ci Ousmane Toukara, le retour le retour du guerrier de New York dañ ko gis ci émission Pape Alé Dakar Matin Ousmane Toukara,

tabaski lakk yàpp daal di invité sénégalais yëpp africain yëpp yi nga xam ne ñoo ko jàppale ba tey ñu bàyyi ko ndax Ousmane Tounkara dafa nekkoon ci guute bu rëy bakkenam mi ngi woon ci xottu gerte ndax moom ni mu wax mooy ne Macky Sall dafa bëggoon ñu delloo si ko senegal te senegal bu ñu ko delloo si woon dala leer Ousmane Tounkara midi ngi camp pénal wala mi ngi rëbës ci dambaloo ba ci paquetage ba ci jagaa ci longue détention wala lu mu mënti demee kon nag dafa rëcc te Pape Alé Niang bokk ci li tax Ousmane Tounkara rëcc ndax juge bi ba mu ko dégloo déglu ñu mel ay ñoom Adama Gueye gis yi activiste di def ci YouTube bi gis nit yi nga xam ne dañu nekk ci mbedd Amérique bi ci euh, ambassade 10 euh, Sénégalais devant le palais de justice tribunal di wax Ousmane Toungara du terroriste le motax Ousmane Tonkara nak daal di Pape Dakar mu euh, New York mais lan lañu jang li ñu le guerrier est de retour Ousmane Tonkara du de a dellu waaw mom Macky Sall moy focusam waaw def Macky Sall dem ci bir interview sax wax na dafa wax ba pap Ali Niang ko sa waay defal nak nag ci Macky defal nak ci Macky xaaral bay def sa live nga continuer di attaquer Macky dañu bëgg nga wax ñu yow sa bop auto yi ngay jiñ ni da nga ko da nga sacc auto lo ci wax bañu tejj la ci fukki wër ak ben onze mois kon li da lay won ne Pape Alé mom moom moom fi ngir deug nekku fi ngir di protéger manam di Ar Ousmane Tunkara, Pape Alé Sénégal Moko ko Djok. a waaw Sénégal Moko tax Djok. ndax bu len faté né Macky Sall bala muy nekk président Pape Alé Moko interviewé 2S comme nous muy interviewé won ni invité won Sonko kon Pape Alé deug la fi nekkal Ousmane Tunkara, nak li lu bax la ci mom ndax profiter na ci mu sétal derab gis nga sax ñun suñu yoon nekkul ci Ousmane Tunkara, dafa doon sàcc ay auto ñun suñu yoon nekkul ci ndax même bu dee def sàcc oto tëj nañ ko jeex na fii Amérique la Amérique boo fi sàccee oto boo fi sàccee oto wala nga def fi crime buñ la jàpp buñ la buñ la buñ la boo tëddee ba pare dañ lay delloo sa dëkk kon Ousmane Tounkara li muy wax yenu na maanaam tëdd na onze mois fukki weer ak benn fukki weer ak benn mais kenn delloo ko dëkkam kenn delloo ko Sénégal est-ce xam nga lu tax c'est parce que li mu wax yenu na maanaa dañ toppatuñ ko dara ci loolu dafa setal daram dafa am benn sénégalais bu ko jaay oto moom conteneur la daan yor di di yóbbu ay ay ay ay oto nekkati sénégalais bi ci li mu wax dafa sàcc oto yooyu bëgg takkal Ousmane Tounkara waaye Ousmane Tounkara setal na boppam te loolu ñun suñu yoon nekku ci oto ak ay milliards ci dëkk du benn Ousmane Tounkara moom milliards yi wax ne gouvernement Macky Sall moom lay pasar pasare Ousmane Tounkara loolu lay xeex milliards yoy mo upp ay auto yo xam ay millions lay jatt te Ousmane Tounkara sax sàccul sax far bañ nan dañ ko yobbu Malek dañ ko yobbu euh, Guinée comme li Maty Trois Pommes don doon wax xam nga Pap Alain Niang profité nek laaj ko Ousmane Tounkara ne mom sénégalais la ñu Maty Trois dañ ci nek nekkuñ ci dara lu dul sos mais Ousmane Tounkara bàyyiwul Macky Sall maître man demba dama def ben vidéo mané Ousmane Tounkara jotna mu dellu ndax temps kat Hélène Françoise Gueye Françoise Hélène Gueye dafa rakkaaju temps yi kat Maty 3 Pommes dafa rakkaaju te Ousmane Tounkara rek moo baax ci ñoom ñu bëri dañu yaakaar ne Ousmane Tounkara dootul wax Pape Alé nag laaj na ko ci saaga yeeg yooyu Ousmane Tounkara nee na dootul saaga loolu la wax dootul saaga dafa meroon ba muy wax wax yi nga xam ne moom lañ ko profité wax ne terroriste la mooy fi muy wax naan moom dee ba pare te buy dem day yóbbaale bu bëri mën na yóbbaale Macky Sall mën na yóbbaale euh, Antoine Diop dafa toog toog lim man seetaan naa laay bi nee na loolu fa ko juge bi laajee gouvernement bi dañu jël ay vidéo Macky Sall ñoom bu ñu jógee di wax ne porté wuñ waaye ñoom ñoo ko porté plainte gorom gorom gorom bi nga xam ne mooy consul Sénégal bi ñu tuddee euh, euh, El Hadj Ndaw nee Moko porte plainte Moko porte plainte ba ñu ko jël ay vidéo tag lu len ci neex dal di ko tagg waaye li juge bi ak li juge bi gis mooy Sénégal dafa tàngoon dafa na am image yi ñëpp ko gis gis nga le 8 mars le 5 mars le 6 mars le 7 mars non le 5 mars le 6 mars ak le 8 mars xex yi sénégalais yi genn prix Sénégal xam nga loolu aduna bi yëpp ko gis ñoom Macky Sall nag dañu yaakaar ne loolu jeex na waaye ku xool li am Medina démb ah xale yi nu ñu génnaatee nga xam ne xale yi ba léegi seen yaram dafa tàng ana ñi doon wax ana ñi doon wax Macky Sall dafa ut euh, day ut ñetti junni euh, alkaati policier day ut ñetti junni gendarme ku gis li am Medina démb xale yi génn waa ñoom Bamba ne Bamba Fall maire bi terrain footballu jaraaf bi nga bëgg jaay wala bi nga bëgg loué andu ñu ci policiers yi ñu leen dara xale yi fees fa del to lolu Medina rek la kon parcel bu génné nan lay mel kon yëmbal bu génné nan lay mel deuxième bac bu leen ko ñaan mambay ñaan mambay ñaan mi fi togon di wax deuxième vague lay out mom lay ñaan mambay bu ñaan yalla mukk deuxième vague ñow ndax deuxième vague bu ñëwee xajul xajul ci yeen xajul ci yeen xale yi ma gis seen yaram dafa tàng liggéeyuñu goruñu yettuñu njëgu attaaye amuñu ko euh nu mu tuddati café Touba amuñu ko comme ni ko Ousmane tonkara waxe ba paré nga gis président bo xamné dafa jënd avion avion bu jor ñi naan 60 milliards ñi naan 100 milliards waxatuñ dara président bi jënd bateau ci li Pape wax bateau Macky la lay doy bateau ak Mercedes buy jar un milliard may bakk kon xanaa hélicoptère moo des ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais li ko gis li xew Medina war nga xam ne xale yi bu ñu génnaatee du baax ci ñoom mais en tout cas Pape Alé laaj na Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara nag nee woon na dina génnaat commencé def ay live xamuñu nag kañ lay doon kañ lay doon mais ñun li ñuy wax rek mooy Ousmane Tounkara vraiment ñun ñu ngi koy encouragé ñu ngi koy encouragé mu continuer ay live am ñu xeex pour Sénégal comprendre man de samay live dinaa ko continuer tant que maa ngi maa ngi koy mën dinaa def samay live dinaa dénoncer parce que Macky Sall nañu waxante dëgg gaay yi jox nañ la réew mi lajj nga lajj nga dangay ngay nangu da ngaa lajj yoo yaa yoo waxoon da ngay def da ngay wàññi sa mandat wàññi nga ko nag mënatoo mënatoo dellu ginnaaw ndax boo noppi woon rek di nga am ñaari mandaa sept mais yoo ne woon da ngay wàññi wàññi nga nag ba léegi nga bëgg yokkaat Ousmane Tounkara nee na Macky Sall lépp lu mu la wax ku yaakaar ne Macky Sall def bëggul forcer deuxième mandat da ngay nax sa bopp. waaw léegi daal gars yi dama ne woon rek xaaral ma defal leen benn vidéo bu gàtt ngir wax ne gàcce ngaalaama euh, euh, Ousmane Tounkara ñun suñu yoon nekkul si dafa sàcc ay oto wala sàccul oto dugg na fii le passé c'est le passé te ñun sax moom wane na ne sàccul oto fii Amérique la man américain laa billahi wallahi taalahi bo amul këyit wala nga am green card sax green card rek boko amé bo boo dara bañu japp la bo paré dañ lay delloo sa dëkk rapido rapido kon Ousmane Tounkara lu tax delloo ñu ko dëkkam Sénégal loolu lay wane kon limu wax man gëm na ko ne satul auto satal nañ ko bok ba mu lèr waaw ñun li ñu wara wax rek moy ñun Macky Sall rek lañuy wax bu gëm Yalla bu gëm Yalla té mu bayyi campagne électorale yi mi def bu mi waaj dégg naa day dem seen louis day dem euh, Fouta waa Fouta Tampi nee na ñu ngi koy xaar na gëm yàlla euh, sëñ Mourou Moussa Dieng nee na am na benn xalif général am na benn xalif bu mag bu ne ko Macky li mu bëgg mooy nga nga dem ci jàmm te loolu bu ko waxee suñu xel day dem ci sëñ Mountakha Mbacké sëñ Mourou Moussa Dieng am na génnaat na tey seetaan naa ko mu waxaat loolu mu waxaat loolu tuddul nag sëñ Mountakha mais moom nee na am na benn xalif bu mag bu nekkoo ko bàyyil réew mi nga dem waaw Macky Sall lol est-ce que dina ko def wala du ko def mais en tout cas dal ñun xex bi lepp luñ ci mën dinañ ko def nak ñun Sonko la gëm waaw Sonko liñu gëm Sonko nak moy suñu espoir affaire Adji Sar bi ñu ngi xaar ñu dem tribunal mais comme ñum lañ ko waxee xam nañ ne du dem tribunal ñun xam nañ ne du dem tribunal ndax cour ndobine ray sa mam bo gisé lu ñuul da ngay daw ñamawuñu woowaat Sonko tribunal waaw mais en tout cas gars yi li ñu wax rek mooy le combat continue vive Sonko vive les patriotes vive le Sénégal like leen partage leen abonné leen Mister Shake la ba beneen merci